asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ak réew mépp ak xarit yëpp ak am di jàmm yëpp di leen ñaanal di sàkku seen ak ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax a baax ndax dañ leen a def yaakaar ngir Serigne Touba nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital Serigne Sidi mi nga xam ne mooy taawub Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tokke jataay ba te mat ko di leen ñaanal yàlla may leen jàmm te jàmm ji yaatu ba ñun ñi ñu am ci jàmm ji ndax jàmm yàlla dafa yaatu ñëpp xañ nañ ci di leen yàgg fi it ak ak wér di ñaanal ki nga xam ne mooy borom jamono ji yàlla dolli ay xéwalam dolli ak muccam te boole ko ci darajee lislaam barke borom Touba. nit moom na wax dëgg rek ndax alxuraan li ko tax a wàcc moo di teqalee dëgg ak leneen looloo tax alxuraan a wàcc bu du toon loolu yàlla comme layool da nga ko yee ndax da ko ne dama koo xamutoon te yow boo jàngut mën ngaa dem ci ñi jàng boo xamul mën ngaa dem ci xam ku leen laaj bañ wax la loo xam ne boo ko waxee wax ja amal la njëriñ kon nag war nañoo xam sëriñ bi xam lépp sëriñ bi boo gisee senegal mel nii gëdd gi ñu war a jox sëñ Touba moom lañ ko joxul ndax sëñ Touba dafay def loo xam ne kenn da koo defut wax fi loo xam ne kenn waxu ko dem foo xam ne kenn jotu fa ku fa mas a dem doo dellusiwaat moom mu dem fa ba noppi dellusiwaat ndax tubaab ku nekk xam ne tubaab du moroom kenn. te amul kenn kenn koo xam ne ñeme woon ngaa wax ab tubaab tubaab su ma saa ñëw ci penc buñ ko séen nopp yi xonq yi daa di daw dugg ci ron lal yi ñu di leen muqar ci dañoo ragaloon tubaab ba defe nañu tubaab ku ko neex sax mën na laa jàpp rek dem sànki la ndax gaa yu baax yëpp booba tubaab bi dong la ñu ragal koo wax rek mu ne ñaanal ma mucc ma mucc ci ab tubaab. moo tax sëñ Xaalima Jaxate ba mu yore sëñ tubaab ci saayir da ko daa wax kaay wër ma bu fekkee ne nit ñaa ngi daje di bay dong yaa ngi daje di bay da ko naa kaay wër ma yàlla xamal ne maanaam koo wër mu mucc ci tubaab bi ndax booba gaa yu baax yëpp tubaab rek la ñu ragaloon. tey Serigne Touba moom daal di koy ñeme moo tax ma ni kii bokkut ak kenn ndax loo xam ne ñëpp ko ragal yow nga ñeme ko kon bokkul ak ñooñu ma bëgg na ñu xam gëddee Serigne Touba sama wax ji sax amu ci benn njariñ waaye damaa bëgg a feeñ bañ xam ne rek xam naa man fi ma war a jaar te ñun ñëpp foofu lañu war a jaar su fa jaaree ak su ma fa jaarul xam naa ko te xam boo ko xamee te waxoo ko amul benn njëriñ Serigne Touba imut ak kenn ci àddina ndax li tax imut ak kenn saa boo ko tegee ci balaas wut keneen teg ci balaas. danga xam ne kooku moom yaa ko bëgg a daane dana ne fëleñ fi suuf te kooka itam moom ñemewul sax a def sëriñ Touba morom léegi na umpali nga Serigne Touba dafa rëy lool. ba tax ne defe nañ ne ku jóg rek di moroom Serigne Touba te Serigne tubaa li mu def kenn da koo defut ndax li ma leen waxoon daaw ne leen yonent bi lu ñu bind moo tax ku nekk xam ne daraja yonent bi ñun ñëpp ci la ñu bind. ngay wàllu nga dem yonent ngay borom daraja noo ma di toll ci na yonent bee tax ñu bind la waaw teral ko rek moo tax ñu bind la waaye yonent bi bi muy xeex lislaam mbooloo la àndaloon. te mbooloo ma lañuy ñuy bari bari asaka jaa ca def daanaka ñëpp lottal nañ leen te dañ leen daa lottal tam ci kanam yonent bi yonent bi gis ko te mënu ko woon a saafara sëriñ Touba nag ñi muy xeexal bokkuñoo ak ñooña ndax ñooña amuñu woon lu may ay jaasi ak i fet ak i xeej ñii Serigne Touba doon xeexal nag ñoom dañoo am kanu am fetal ami machine ba noppi mu mucc ci ñoom te kenn newu ko ni ma jàppale li fi mbaa defal nii mbaa defal naa moo tax Serigne Abdoulaye waxoon ne. Serigne Touba ba muy ñaan kenn nekkul ci gannaawam naa ko amiin am ku bëgg lu ko neex daan ne moom kay booba ñëpp a ngi naa amiin nu ñuy amiine ndax koo xam ne ba mu demee daga daa rey gàtt bisub àjjuma di togg ay ñam di wàcc alxuraan naa yàlla bu mu siwaat kooku kay amiinoo ko xanaa kay yàllaa ko sàmm tey moom waxoon naa ñam doon waxal ne leen. rooge de moom moomu ko waaye sama jom tënku ko te nam ko waxe woon mbàkke bala na la ko defee te loolu mooy sunu mucc Sénégal boo gisee ñu mucc Serigne Touba rek la ndax képp koo xam ne mënoo daaneb tubaab mënoo jiite aw yoon ndax tubaab li mu bañ mooy lislaam te lislaam rek la bañoon mu taxaw ci Sénégal moo tax sëñ Moussa Kare wax ne dogan kan ak dem ga wala nasraani te kon billahi ñëpp dem niiraani te loolu mooy dëgg ndax ñun ñëpp kon nag ne jaami tubaab bi la ñuy doon la jiitu sax tubaab bi taxaw fi ba di fi wane jooju daraja ah da ngay xam ne buur yi ñoo fi nekkoon daan daan nit ñi di leen weer di leen yeew lu ne ñu doon ko te boobu mënuñ ci ak yéen te ñooñu ay nit dong lañ ba tubaab bi dikkee moo daane ñooña kon nag sëriñ tubaab ma daane ñooña li tax ñu naan ko yàlla daa amul moroom tubaab ba man mu man tubaab amul morom kon ñi wax ñëpp naan bokkaale bokkaale dañoo xamul lan mooy bokkaale ndax sëriñ tubaa day koo xam ne ba muy door ñëw ci jamono te xane ay atam bëreegul noonu dañu daa wax naan ñu ne yow de sa doom jàng ci Serigne Touba dem na ca Modou Mbacke ah Modou Mbacke ñu ne loolu di déggoon ko ca armée la sax moo ma ko gën a doon booba kenn bëggut ku dem ci Serigne Touba ña nag ñoo yoroon seen ak te ak seen bëgg la taxoon nag ñu def ko it booba yàlla moo leen ci xéeroon ndax Serigne Touba am na ñu ko war a topp am li mu yor am na ñu ci war a am. moo tax ñooñu dagga ca làng ga daal di ñëw rek takk Serigne Touba ku ma sa takk Serigne Touba nag say bokk bàyyi nañ la sa ñëpp banañ la du nga am du bàyyi nga am ñoom ci seen bopp ñoo dajaloo woon def seen askanu bopp. di kër kër yi ci sëriñ bi mu jaral leen lu nekk buñ dikkee ne sëriñ bi ñun de dañuy lakk suñuy kër ñun de dañuy saaga ñu de dañ manqué lu ne ñu doon ko wax mu ne ah nangeen ngeen muñ ndax saaba yi ñuy seen baay ci lislaam te it ñoom dañ leen daa rey sax te wax dara dañ leen daa dagg teeka rey kon nag ñun liñ am kenn da koo amul waaye dañ koo xamut ndax sëñ Sàmbaay ne woon na buñ dee ba ca catul jamono am na ñoo xam ne dañuy yor or wala ñu yor jamaa ñu nax leen ba jox leen weñ gu ñuul mbaa xànjar ñu jàpp ca defe ne moo ca loolu nag moo nuy bëgg a ndax dañoo am loo xam ne kenn amu ko boo gisee muccug Sénégal gii wóor na yàlla wóor yonent bi ak sëñ tubaa sëñ tubaa rek moo mucc googu amul kenn koo xam ndax tubaab ku ci dugg ba génn ci lépp lu ne def nga ko wari su koo miim murit nag dafa war a yor jikkoy ëkk loolu la sëriñ Abdu Lahat waxoon ndax ëkk moom tiitul ngelaw waaye ko xam ne dangaa yor jikkoy dongo ganaar mbaa perméable mbaa sagar lu naaw nga ànd ca naaw ca bu ndox dikkee wal yóbbaale la na nga war a meloo na ndax Serigne Touba de way gum way ak dëgër gum dëgër ak fulla jum am ak regle gum am ak pas-pasam ak uk dëgoom moo waral mu indi senegal fii ndax li leer mooy jamono yooy tubaab bi bu fekkoon ne tey du woon Serigne Touba kon yëngalub tànk ndax lislaam dañ koo tënkoon jatanku ko yeew ko fas ko yéene tàbbal ci géej gi wala ñu gas ko suul te julli nag dañ ko moom dañ koo tënk jatanku ko war naa xam li muy def war naa xam li muy wax waaye réew moo xam lu neex waaye mu wax am na loo xam ne bu xewee dañu naa lu waaye xam waxal gone yu tuuti yeeg mbucc mbuccaan yeeg ñu xamul daraak ña ña topp seen ak bëgg ba xamuñ dëgg ak ñëpp ñu jox leen micro di wax loolu daanaka moo tas réew mi te wax ji amul benn njëriñ ndax man gisu gisuma génn ak jub man ak sama morom a ci yem génn ak jub goo xam ne dolli ko na gisuma ko wax ji bari na waaye daanaka wax ji amul bëgguñu ak dëgg ndax Serigne Abdoul bi mu ñëwee te andi dëgg gi gis ngeen nañ ko def bëgguñu koo gis dañu daan bind ay leetar di sànni ci biir kër gi naa ko soo mënut baal di ko wax wax ju ñaaw joo xam ne ji kenn mësu koo gis ci àddina waaye nag képp kuy xalifa Serigne Touba ba ba àddinay tukki war ngaa sant Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndax Cheikh Modou Moustapha lu ne dégg na ko sëriñ Fallou lu ne dégg na ko Cheikh Abdoul lu ne dégg na ko waaye ba mu jàllee ba tey ku fi nekkub xalifa dañ naan yàlla na fi yàgg te wér bu ñu nee diw ñu ne yàlla na fi yàgg te wér te loolu ci Cheikh Abdoulaye Mbacke lañ ko tàmbalee ndax li ko def mooy dañoo wax a wax ba ne xaaw wax ja ñu ñu seetlu amul benn résultat bu leen amal njëriñ ñu daal di ko cay tuube moo tax ma ne ba baax day tukki dootoo dégg xalifa Serigne Touba boo xam ne dañoo taxaw di ko wax dara nu mu baax na ci ñun ndax xam nañu looloo nu war te loolu ñu ngi ci te loolu ci Cheikh Abdoulaye Mbacke lañ ko tàmbalee kon nag war nañ ko sant ndax li mu génnee ci réew mii mënee su ko wax waxuma laa Touba gii nag da koo sellal settee ko segg ko ba mel ni mu war a mel te noonu la ko sëñ Touba bëggee woon moo tax man ku ko gën mënuma koo xam ndax li sëñ Touba bëgg ndax nikola ku bàyyi lu la neex nga def kilifa tàng du ko yàq ñàkk njëriñ ko yàq kilifa sawara moo gën kilifa ndox ndax li ndox di rey sawara lu rëyul lu toll noonu te li ko def mooy dafa sedd nga teg sa tànk mu sedd nga dem ba sànku kon kilifa war naa wax am orma ju toll ne ak urum yem leen fii waaye képp ku naa yem leen fii yaay noonu Sénégal bëgguñu dara dara ci dëgg dañ koy wax ni ci kaw rek waaye du dëgg ci seen xol ñoo man mii yem man mii di wax maak ñoom a yem képp léegi di wax dëgg te doo ko jëf loolu amul njariñ ndax yàlla lépp loo xam ne jëlul ci xol ba bëggut a gis loola bëggut a dégg loola te xol yi nag moom moom lañ war a defaraat ba noppi war a xam ne njiit daa mënta ñàkk ndax àddina boo ko seetloo boo soxla woon te jii Macky Sall mais daal di waaxu damay dem jox ko loxo bala ngaa yegg yaakaar ne sagru mën na faa jaare loo dafa am fuñ koy jaare jaarukaay daa mënta ñàkk sëñ Tuubaa nag dañoo xamut àqam ba dañuy fab sax ci biirum njabootam di ko wujjaleeg moom mbaañ fab ci taalubeem di ko wujjaleeg moom di wane naa diw de bu doon toon ak moom bu doon toon ak moom june booy ba nga xam ne sëriñ Tuubaa la sëñ Tuubaa ku mu yuutu def la ci boppam daf laa bëgg teral waaye bëgg laa tee doo taxut moo tax maanaam bu ñu àndutoon ak Seexi bamba Tuubaa du tee mu dem nun ñu soreeg baax bu ñëwutoon duñ xam ci baax dara ci sun bakkan la ñu nekk te bakkan moom lu may sonal borom ak jëme ko ci musiba dong moo ko tax a jóg sëñ Tuubaa moo ñu jàppale nañ xam li mu am ba jàppale ko ko nag ndax moom yaa fi ne moom lañ ko war a wax ndax moo fi ne leneen nekku fi xanaa tey la door am wujj waaye ba muy dem ci géej gi birom ndar ba kay sëriñ sa bari woon na ñoom ñëpp dañoo salit moom rek moo ci wax la tax ñu yóbbu ko te lam wax bu ko ñëpp waxoon itam ñu yóbbu leen kon nag moom war nañoo xam mooy kan te loolu nag la Sénégal di bañ féete la ñuy bañ liñ gën a bañ mooy jiital kenn sëñ laa nee na ku xas ba jiitu ñu gis sa tuba ju xottiku gis sa tànk yu dëng lool na nga ci am. waaye nag njiit moom bu toppee coobareem ba wàcc yoon ñëppay gëlëm nañ xam ne bàmbaa amu yoon. buñ nekk ba réccuwee ñu doo di seetlu Cheikh Bamba jox nañu lu jar ñuy teeylu ndax yor baam ba jox ko dund yaa te sax ca faw gis baam ba doo yaa doo jëf lenn loo xam ne yàllaa tax lépp looy jëf da nga koy jëf ngir ko naan la waawul lay wala koo xam ne bu demee di yëkkati sa tur wala mu yëkkati sa daraja doo lépp du lenn li am solo daal mooy na mag ña defoon mag ña nañ defoon topp Serigne Touba ba lañ bëgg lépp ñu am ko te sonnuñu woon ndax ñoom toppuñ ko woon ngir ay dongo toppuñ ko woon ngir wërsëg toppuñ ko woon ngir daraja dañ koo bëggoon rek topp ko ngir yàlla di ko lëggéeyal lëggéey boo xam ne yàlla rekk a taxoon moo tax ba leen yàlla fayee de sant nañ te Seex lan Mbàkke nee na saaba yi nañu toppee woon yonent bi ba tax mu defal leen lam mu leen defal nee moom xam na ne buñ ko toppee sëriñ Touba nee topp gi ko wur waaye buñ ko toppee Serigne sëriñ Serigne Touba danañu defal loo xam ne dana mel ni loolu lool sax da ko ne waxee waaye li ñu Serigne Touba defal yonent bi defalu ko woon saaba ya ndax saaba ya kenn ku ne da ngaa yoroon sa métier di liggéey di ñëw di di ca teral sa waa kër di ca tedd la nga am ak ne ci loolu nga ko am te sëriñ Tuubaa képp ku mës a gërëm dangay jaaxaan la sëñ Moussa Ka wax ne sëriñ Bamba misaalam du wàlliyu mbaam ki ñuy sëf sëfi doomam di xaj muy raam moom bu la xasee ba gërëm jeex na mën nga koo liggéeyal donte ñetti fan la mbaam mu yées ko waaye bu la teralee da lay teral teral sa teral sa doom teral sëb sët teral sëp sëtaat ba baat dinay tukki fu ñu gis mbokkum sëñ Tuubaa fañ ko teg ci la ñuy tuddee bokk fa ñu ko teg yow mii nga xam ne sëñ Tuubaa da laa gërëmoon foofu la ñuy teg sa lépp bu dee doom noonu bu dee sët noonu bu dee kon kooku kenn mënu koo fay kum yuutu dalaa bëgg a defar rek waaye du càggan mu bëgg a ndimbooni koo kenn kon nañ xam sëriñ Tuubaa mooy lan xam nañ ne daa wàcc ci suñ biir bëgg noo teral yàlla baaxe nu ko te loolu ñun xamuñu ko kuñ jóg tëkkale ko moom naa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moroomam diw sëñ Tuubaa du moroomam kenn ku ko dégg na booy bool lu la neex nga wax ma ko loo ma wax jaral na ma ko ndax xam naa ne man dëgg laa wax alxuraan ku ne xam ne dëgg ko andi te it am na ñu ko gëmut kon nag wax lu rëy rëy bees ko weddee bul ko def muy dara ndax ku ko weddi ba noppi dana dem ba mu yàgg mu dëggalaat ko ndax dana xam ni lii nga wax moom wax ju wér la te it ndegam jigéen ñi dañuy waxtu te wax lu may waxi po ak waxi caaxaan te dañ leen di déglu kon ki nga xam ne ndax sama wax ji waxuma ko ci neen waxuma ko ci caaxaan waxuma ko ci foontu ndax man damaa bindoon leetar jox Cheikh Abdoul Ahad Mbacke am lu ma ko booleel ne ko Mbacke dama laa bëgg a jàppale loolu waxoon naa ko fi daade di ko ne jàppale ji nag du doole du alal ma ne ko du xam-xam du dum xel waaye nag ndomp sax ci cot la. ndax ñaar bu ñuy xeex boo demee ca ka nga farle ka nga farliwul nga di ko domp danañ xam ne kii nga faral loolu laa ko waxoon te ba ma ko waxee taxul mu tere ma ne ma jigéen nga bàyyi ko déedéet loolu moom defu ko woon daf na ceel daal di ne cey soxna si ndoo rek la ma daan wax soxna si moo dib daanukat daanukat yooyu nag bokkut ak daanukat yi léegi ndax léegi ku wax ñu ne dafa wax waxi daanukat waxi daanukat mooy lan waxi dëgg moo ne waxi daanukat yooyee day moo fi ne ba léegi si xanaa léegi nag daanu daanu lu yi moo tax léegi nangootuñ daanu ko te daanu kat ba tey am na ndax daanu kat du daal lu may bëgg Serigne Touba rek ndax am na koo xam ne kii dafa nekkoon nag Serigne Touba ca njaareem daan wax ak moom wax yoo xam ne taxut mu neexe noonu Serigne bi ne ko demal liggéeyi rek demal liggéeyi xam nga lu mujjee dem ba mu yàgg mu summi tubéyam daal di woddu comme que sate nga sol tubéy mu ne la sumil góor gi genn rek la kon sëñ bi ku ko jox sa bopp daga daal di xam ne kii moo jar jox sa bopp tey nax sa bopp amul solo ndax da boo naxee sa bopp it danga dem ba xam xel ne nii du ni te it ki nga xam ne moo xam lu ne te wax lu ne te man lu ne te sañ lu ne ta def lu ne te dem fu ne te gën ku ne càppaaculi gi bañ dërëb ñemeb tubaab kooku mooy Serigne Touba. Touba nag duma ko ci boole léegi ndax li tax duma ko ci boole léegi dëkk bu mën doon ñu ne dëkk bu tedd ba dëkk bu ne ñu ne dëkk bu tedd bëgg yëpp bokk tedd teraanga sax yàlla du ko jeexal waaye def ko ëppaateel ni nit ñi boo xoolee àddina ba mu sosoo ba fi ne ay njiit day am loolu am na ci dëkk ndax dëkk ko waa ju baax joo fi gis mu dëkk fi barab dafaa ñëw ñu ne ko ah ñu ne kii dinañ ko téye ndax ku baax la di ko jàppale ba mu toog sëñ Tuubaa na dëkk bi mu fii ñëw yuy lore dong la fi fekkoon mu toj dëkk bi defar ko ba dëkk bi mel nii mu mel tey kenn waru koo def morom koo def morom it dangaa topp sa bakkan rek waaye xam nga xel ni sëñ tubaa du moroom kenn ndax dafee def loo xam ne kenn defu ko dem fu kenn jotiwut man lu kenn mënut ndax yaram yàlla defutoon luñ ca def rek mu mel ni ku ko def ci bant dakoo koo defoon muy dund waaw ba loo ci def mu metti jomam ak ngorom ak fullaam ak pas-pasam moo ko téyoon ba mu def lii mu def moo tax man du ma mën a wax lu may lii ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom loo rek la bëgg bëggul lenn loo xam ne da koo wax ndax alxuraan ci boppam nee na kurut kam wàccoon ci moom nee na ñëwuma ko ca te kenn ku ne te nga ci sa bët gis nga ci sa xam-xam ne moom dëgg rek a ko ñor kon dëgg googu rek a ñoroon su ma amee jom moo may ñor duma wax ngir lu naqari kenn kenn kenn te man naa ko waat ci alxuraan du ma wax ngir lu neex kenn kenn kenn kenn du ma wax ngir lu neex ñenn man daal li may wax damay bëgg mu neex ki may waxal te loolu moom sax naa ci dàq ñëpp xam nañ ko ci man lépp lu mu doon ci àddina boo gisee suñu karang-karang yi dañoo mooy yoon wax moo tax boo mooy yoon da ngay son talax-talax ba yaa nga ni moo fii fu mu rek loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal ci daraje lislaam ak barke borom Touba. dama waxoon ne bisimilahi maa ngi laaj Cheikh Abdou yoon ba noppi laa jaali jullit bu soxla yoon xam nga jullit du fa ko neex mu defu yoon jub ak jubal ba noppi aw ci kaw yoon jamono ji ku ne sa xol mooy sa xorom. bu rafetee loo sóobu loola saf xorom jamono ji ku ne sa xel mooy ki la yor bu rafetul xamal ni kii mooy ki la lor def li nga man wax li nga man daal di nelaw boo ko deful gëmmal nde doom mën a nelaw te foofu gis mbooloo nga daw ne fa dareet te buñ la nee xiili nga daal di ne lareet te nit ñi néew ca la pësteef gën a baree saa buñ baree pësteef ba dootu fa baree warante baag naxante baag jeyante baa daal di takkar naase ñu génn bii baa xam nga ne suuf su set niroowul ak mbalit lëmës lëmës du tee nga xam jikkoy mbalit baree nga noonu wute naa ko barkeel di andi tuur kenn du ko def lu barkeel nangoo nga noonu wute naa ko gàntoo setal sa bopp daanu moo di gantoo ca yàlla maaka waaru fukki way ak ñaar te atte lépp lépp tey fukk ak ñaar sëñ Moussa dafa waxoon ne boole way ak i taas la waxoon da ne woon boole day way ba noppi boole ko ki taas tayit loolu Serigne Touba rek moo ko jaral yàllaa ma aar ba ma ñëw fii man ba xam li ma xam su ngeen ne bon maandu ci man rek ma wax li ma xam yaakaar ji baa ko joxee Cheikh du laa war a xam wërsëg bi baa ko joxee Cheikh du laa war a am. ma bañ a banku ne kiit ndax yéen ku bëgg am daw ñëw ci seex bi moo yor kuddu gi tax a xam moo yor kuddu gi tax am saa bi fu ne xooj naa ko fa mujj ko fa xoojee waaye tey bi ma ko xoojee ci seex dootuma ko xooj billaay dootuma ko xoj wër na yàlla ne dootuma ko xoj ndax gis naa fi lu ma jaral <clears throat> lu ma jaral xelum kajoor dikk na ànd ko wilaaye ba fengat dafa mokkal plan te soxlawu ko ndax Pastef loo indi fi laa rek xam na ko na nu xàmmee bu dee lu baax dana del si si yow buy lu bon jëlal sëy ngërëm moo ma gënal alaas ak aji mbàkke nguur politique la su ngeen xamoon li xew nangu ma dem na ci jës bi waaye nag damay jëkk a wax jàpp ci kaw jàpp ci suuf tey digg nang ma xamal lu gën ma dem di jàngi baax ndax alxuraan jariñu lañ koy soxlaa nang ma jariñ lu am njëriñ laa soxlaa. bisimilahi maa ngi woy saawaa ji ñëpp soxla tey te ëllëg la gën a far moo tax ma fexe am ko tey man ak nekkam akuk baña nekkam di lépp yem ci man moo may digal ak tere. ba na lépp em ci man alhamdulilah nag war na ci man naa sant nag te sax ci way te jéem a xam nag li ma am di gën a gëm di gën a way ndax mbaam mu yeex te ànd akug sëfam ba yegg fa mu jëm moo gën mu gaaw te àndut ak lenn ba yegg fa mu jëm. koy topp toppal ci ku foor fa yàlla buur bu sun borom Cheikh Abdou yaa woyof te diis ca yàlla buur bu sun borom kuy raam ni roowul ak ku naaw dooleen ki xaadimul xaadim tànni fi tànni fi ngëneel ahmadou seexinaa xadim sàq niroo wala kandaar bis pénc ci kenn kee di buur seex bamba ab doy sa médaille sëg dëgg genn la fa buur saxaar niroo wala jalaal seex bamba doo sun maasi maam sunu jumaa ji gën baraak nañ xame noonu mbooti daam nañ gam ki wàcc alxuraan ak ki tax ñu wàcc alxuraan seex bamba moom naan alxuraan cey doomi sono sporoxaan alhamduli alhamduli aqi bi aqil ahmada wax jee ñeel saa bàyyi bàyyi ni ñëpp sant ahmada gaa yi nañu dooni murit tamaño doon murirandoo fayal ma taali ñi ma bañ Cheikh Abdou Yamat àndandoo sàllaawu sàllaawu xanaa Cheikh Bamba daf nuy geesuwaat bi ñëpp jàngee alxuraan foog naa ne nag du ma ca waat bi moo ma war baraw na waxtu wi juróom fi raw na weeru koor naa sax ci sant doomi daam Abdul Ahad Abdul Ahad Cheikh Abdou Mbacke nag nu xiir ndax umpiwuñ ne yaanu moom <coughs> kon Cheikh bi Mbacke nag nu xaar Touba de yaa fi jëlee tooñ Touba de yaa fi jëlee pon Cheikh Abdou Mbacke yaanu fóot kon seex bi yaa nu xaññi noonu cee waaju topp cib sëfam ba noppi sëf lu mu ne ngéej say tere mos ku ko ne siiw duma ko seen ba ne ko ngéej jamono ji li nga ci tëral njiitu sëriñ bi yaa ko baax ku soxla yàlla suturaal la danga xool ki gën a baax Seex du Mbàkke mi ma doy ku soxla Bàmba na la doy ku béer mbiram ba foog ne moo ca nekk Mbàkke du nu doy dàqe may wut ay murit siyaare bi nga fi saxal yaa xam li tax nga def ko seex sama murit na nga ko saxal képp ku jóg ba ñëw fi man na nga ko defal li ma defal nit ko añaan du ñëw fi yow mbaa kon doo am li ma defal seex baay ak baay dañoo niroo seex doom ak doom dañoo niroo bu dee ñu bokk bëgg yàlla ñëpp mbàkki ñooy niroo tey waa xarit gu nii tey waa ji njaam gu wéri nii seex du ma xool lu toll ni saa tëdu ci yow xol baa ngi nii Seex Abdu doo këppatal ba loola ñëw nga jàpp rey moo tax ma ñaan waaju la sopp yàlla bu mu ko gaaw rey te ko fa gis mu ne ci lii ku la xamul ndax di la séen bu la jegee ba xam sa lii dana la daw ba doo ko séen xayral wara ak defaram nit ku taxaw ci yàqu ko nanga nga jubóog Cheikh Abdoulaye foo man a jaar da nga ko sikkoo mbir moo fi seen tamit mu baax ña fa saxoon ba mu laata siiw la ñu fa daj kenn du ko ŋaang lu may nga xëy dégg mu siiw Cheikh Abdou Mer fu ma bawoo fudul ci yow ma def ko neen yow rek mën a def ci man Cheikh lu la soob yow rek mën a def ci man mbir ma la soob Cheikh bu ma neen Cheikh Abdoulaye amul moroom ku am moroom muy sa boroom ku weddi li nga naw sa mbir ba bëgg doon sa borom amu ci kenn ku ko séen billaahi yàlla gëm na lii tëggiñ lu am du tax a séen ndax ak jubam ak matam la kenn jéemut a xalaat yaaram bi nag ma dolli xaal ba ma niroog yow xalaat ku soxla kii ñu bokk ko ku soxla wut nga jox ma ko man du ma seeti gaa yeneen seex bee ma fal ma fonk ko ku nanguwul danga ma sore ku gàntu kii danga ma sore ku mënta fecc bul jege daara ji sax ci bég di ree jaajëfate jaajëfate gën gi mbindeef ak li mu aar sëriñ bi rek moonu moom te ku ko gëm ku ko gëmul xanaa di soow loo xam ne lu du moom lu jëm ci cër bi seex bi jaay xanaa di sàggan sax sax ci juum nit ku ci ba bëgg jooy nga foog ne kenn moo la tooñ te loola dal yaa ko defoon lu jiitu ñuy lijjanti tooñ Seex Abdu Mbàkke moonu moom ku fuuy ba foog ne yaa ko moom bu mbiri sottee dëgg a diig nañ xame mbër mi war moom xam ngeen ni njiit luy koy koy ñam jiite mos duñu dëgër Seex Bamba ba mu demee ci géej jëfal ko may taxat dëgër jëfin wu nekk am na yoon waxin wu nekk am na yoon waajoo fi seen tadi ko ñee bu dellu sax aaw na ci yoon Seex Bàmba yaay sunug saxaar nañ gaaw te dugg ŋàbb paas taw fu xa ngi te ke ko yor wóolu ko moo di sunu paas maa ngi waxal lu jar a wax lii lay di këri këri waay buur yàlla ma wàcc fa nun ku weddi lii torox nga waay liggéeyu ndey liggéeyu baay lu man di doon nga weddi daam yooye nga yaakaar dana neen samaam jëfu jëfinu daam ina la si ne kafaroo kenn mën ta jëf ba weesu daam ki bindu suuf te bindu jaam ñi moo nu baaxe yundu daam lay ilaha illa laa jëwoon laa ilaha illa laa jëwoon laa ilaha illa laa jëwoon ci seexi ibra laay wayaan bajantu nañ ko fa jëlee reebane nañ ko fa jëlee rambaaje nañ ko fa jëlee xeebaate nañ ko fa jëlee Cheikh Abdou yow ku la gëmul defub dërëm muy sëriñam bu ma ko xam bu ma ko am Cheikh Abdou kee doob sëriñam am na ci ñun summiku nañ far nañ ñu def yaramu neen xaw ma lu ñuy lay seeni gaay ba tax ñu def yaramu neen ku mënta sant noo jotee kumpe baax na ngay rawee Cheikh Abdou yaa tax ma jotee ñi raw ci sang man la ñu rawee selang lu gaa waxoon ci baay Abdoul Ahad laa fi waxaat ñu rëwul ak lenn ci nun naa sax ci wax rek waxaat ndax gumba kay ku koy fexel ba mu am lu mu war a xool lu may ci yow kon Cheikh bi laa fi war a xool ndax ngor niroowul ak leneen ku fi fexe niroog leneen fabal sa yëf du ma la roy du niroog leneen gis naa fi nam jëfe woon loolaa ko xañ yëf yëpp amoon daa sax ci reetaan ñi amul ba ñàkk yëf yëpp mu amoon ba tax na tey ku dem këram ba gis ña doonoon waa këram ñu tey Samba ak Demba bëgguñoo doon waa këram foor ga waxoon ci woy wile bëgg tubaab sosu ko woon man du ma wax xel kaa doon waxal moo ko sosoon woykati biir yi fi newoon ku dul xaadimu rasul way naa lu mel ne lañ wayoon ni maati xaadimu rasul xam nga ne bër ca dënd ya gaynde gi rek laay faral dox di farak ku mënta fas sa aajo loolu daanu la xam nga ne luy lor bu ñëwee ku mënta daw te mënta yéeg boo dee ko xam ab tolluwaay doo noonu gaa mën a yéeg ku soxla yàlla rus la waay dangay fexe ba rus ko waay boo ko rusut tanaa xanaa dana ma rus nooy jage waay moom moo def kër Serigne Touba te bu ko teewoon Serigne Touba doo am kër te mboolem réew mi koo wax ñu ne ba ma demee damaa laajte kër Serigne Touba te genn gi rek moo ko jur ndax ba mu ko defut xel dajagu ko woon def na fi yu bari yoo xam ne yi tere fi tux tere fi naan tere njaaloo tere lépp lu bon te ba mu ko tere képp ku koy bëgg di xam nga ne yow li ngay dëggal doon lu dëgg ndax tubaab bi sax dañoo daal di xëy xëy daal di koy tere te mosuñu koo tere te su ma yeboo ne kaddu bi gën a rëy ci diggante tux ak naan su ma yeboo ne fii lañ ko daa joxe diggante Touba ak Mbacke foofu rek lañ ko daa joxe am na saa soo xam ne dëkk bi dëkk powukaay rek la ba defoon nañ ne yoonu mu yoonu folo dëggu gi moom ak dëggal gi ak dëgër gi moom ci Cheikh Abdoulaye Mbacke la ko yàlla jaar ni nga xam ne na la yàlla def Seydina Omar ba mu ñëwee lislaam dëgër këng ba kenn dootu ko fonto kenn dootu ko foye jàmbaar joojee loolu Cheikh Abdoulaye Mbacke def ci yoonu murit def na ci loo xam ne kenn mënatu koo xayma ba xam lu mu doon loo ci wax lenn ngay wax rek waaye doo mën a wax leneen te na diggante def ak bàyyi nee na koo fa seen muy taxawaalu du Abdul Ahad te luñ fi wax su may bon luñ war a wax na ko wax na ne ah du ba duna day yett rek ko koy yàq tege les munut ak gàntu les man ak xeebal nit soxlaam su may boone li alxuraan ak xam-xam lépp def na ko ayam bu teg ku bëgg a dégg ba tax na kenn ku ne da nga cey wut ca wax yooyee nga xam ne ñëpp dañuy xam ne sañu laata ko wax nga taxaw ci géew naa diw nee na te fekk kooku waxu ko di jëkkante ay wax dañoo gëmi wax lool te nag dëgg la boo ko dee jëf am na solo waaye ki jëf moom ba romb la soo koy wax soo ba nga waxal ko li li nga xam ne moom la jëf rek nga waxal ko ko. damaa waxoon ne bu ñu féetewoo dërëm ba seen ci bamba nañ jéem a sàkku ngërëmal seex bamba ngir leer gu sar ci yow ba wéy ca doom ya moo gën a yàgg ab dërëm ngay fooyu ngir ragalaati mag ñi féeteeg bamba loolaa fi nekk mooy ñaam seex bamba ñun bu ñu ci ñoom te teew teewloo bamba ndaw yi fi nekk ñëpp jëm ci bamba lu nekk am na njiit te waa kër bamba ñoo njiitu yoon wi bu ñu réeroog bamba ndax njiit bu toppee coobareem ba wàccoon ñëpp ñëppay gëlëm nan xam ne bamba amu yoon bu nekk ba réccu wey ñu root di seetlu seex bamba jox nañu lu jar ñuy lu ndax yor alali bamba jox ko dun yaa sax ca faw gis nga bamba doo yaa sëriñ tubaa sëñ Abdou Lahad dafa wax ne a ah, man de bu ma xasee wan sëriñ tubaa kanam li ma koy def ma di ko ko defal li ma war ma ne ca nee na gannaaw gaangoog lu waay xam defal mbaa bu dee wax waxal kon nag noonu doo nga lañ mën a liggéeyale yàlla ndax sëriñ Abdou nee na accan la ngoo dem ci yàlla doo ko dégg koo ma toppoon ma dem mooy tax a dem ci yàlla kon yàlla nañ nangoo dem ci darajee lislaam barke borom Touba nangoo wax dëgg nangoo féeti ci dëgg nangoo ràngoo dëgg tey luñ ci dégg mu jaral nu ko ci barke borom Touba yàlla nañu yàlla aar suturaal ñu teral ñu ci darajee gaa yu